abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir saa su ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi yëkkati na mbaadu parrainage nag day bëgg dakk ci réew mi ku matal critères yi tax nga mën a bokk ci élection nekk président bu Sénégal 2024 nga mën a samp sax ndënd Dakar Times naan man xala leen géew gi mu yaa lool ku bëgg bokk day bokk ndax boo moytul parrainage daf fiy jógee gaa yaa ngay sar xoole naan Union européenne ci boppam ak haute cour de justice bu CEDEAO ñoom ci boppam ñoo ni président Macky Sall Sall ngaari xoolal parrainage bi nga daganal sa réew baaxul tàbbalal géej Dakar Times naan man for naa ci yeewi béy waaye njiital réew mi président Macky Sall dana sàkku nag ñu daal di saytuwaat système ba nga xam ne noonu la ñuy amalee parrainage bi ci réew mi waaye tam nañuy seggee gars yi 2024 2019 bii ñu génn rek ñaar fukk ak ñett ci candidat yoo xam ni bëggoon nañ bokk ci làng gi bëreeg mbër mi ñu ni leen mënu leen bokk ndax matalu leen union européenne meroon ci ba futtu ne woon président Macky Sall na dañ waaye France daal di xidéem ren jii ren jii soo moytul de coowal parrainage jóge ci réew mi tribune yéen kaay ne ma lañ bëgg mu jóge fi jógewul ñetteelu mandat boo xam ne ku ñëw fattuñook moom su yaakaaree ca réewum France Sall ngaari day mën na dem toog ndax nag France Macron ña mu àndal ànduñ ci ñetteel bi mandat bu Sall ngaari bii yéeni kaay dee média bi naan maan waxul de yeeyu ci yàbbiwu ci moom président Macky Sall waaye bëgguñu moom prix Nobel bii di wala Soyinka daal dina ne saraax nag ci projet bi nga xam ne ña ñetteel bi mandat bu président Macky Sall ñoo ko daal di yenu Arona Coumba Ndoffène nekkoon fi ministre am naan président Macky Sall li nga bëgg moral nangu ko li nga bëgg décence nangu ko Sall bàyyil ñetteel bi mandat bi Sénégal àndu ci laas naan kon moonte waajaa ngi waajal boppam de sawar lool lool ay gaawam yéene kaay bi naan maan Farba Ngom ci boppam la daal di tabb def ko secrétaire national bi nga xam ne moo yor wàlluk organisation waaye tam mobilisation ci APR toogul Le Soleil yéene kaay mel ni ku naan kon moo yay laaj ñetteel bi mandat nag ndax boo xoolee tali diggante Mbuur fati ka Kaolack ña nga ca liggéey ba dee sàll ngay liggéey maritaw ñaan ci bés bi le jour naan kon li ñu nekkee ci violence dafa doy bul nu ci dolli lenn Walf Quotidien naan yàqi wax la de ndax président Macky ma nga ànd ak ay troubam nag ngir ñu roñ roñeeg moom jëmale ñetteel bi mandat l'indépendant yéen kaay naan kon ci fukki at ak ñaar yoo xam ne yaa ngi ci réew mi yow Sall nag tey laa lay xamal lan moo tax bëgguñu sa ñetteel bi mandat yi fukki at ak benn la yoo xam ni scandale ak caxat-caxatee alalu askan wi def ci li ngeen saf ngeen fi nekkee fukki at benn yoo xam ne Sall déglul da ngeen ñu digoon ab gouvernance boo xam ne sobre ak vertueuse lay doon mu mujjee ci loo xam ni def lu ne weng sàcc suñu alal te du mujjee fenn bari ñoo xam ne daal dinañ leen di teg loxo corps d contrôle yi def ko muy IGE OFNAC compte mu jur fenn yaa ci teg sak concu Guy Marius Sagna ci turbine yéen kaay ne xoolal Mansour Faye goro national 98 milliards yuñ koy jiiñ mun a ciel xoolal Mame Mbaye Niang ak rapport OFNAC bi waaye tam xoolal président Macky Sall mi nga xam ne def lu ne weng du mujjee fenn moo am ci réew mi l'indépendant ne ko barki démboo ay juróom benn milliards ci Covid bi ni may mujjut fenn ñeen fukk ak juróomi milliards ñu koy laam-laamee ci contrat armement bi fenn juróom benn junniy milliards Petro-Tim ñu ca sa rakk fenn ñaari junni ak juróomi téeméeri milliards yu ArcelorMittal yi anamu coowal ne ko trans ba ak Bolloré anamu marché yi nga xam ne ñu ngi koy defee ci yaa ma neex fu mu mujjee am benn pàcc ci réew mi ñoo xam ne ñoo ànd ak yow seen lépp baax di dox ñàkk moom dañ koy dégg dootuñu ko defati El Hassan sal ci turbine yéen a kaay naan kon moo ne Sall day ma nga doon feete fukki ak benn yu mu am ci bopp nguur gi El Hassan sal naan kon sa ay neexul de Sall ndax yaa fi ne woon état de droit da nga koy andiwaat ci réew mi fukki weer dese la ci bopp nguur gi ana état de droit liberté amul ci réewum Sénégal ku gees suñu tëj manifester doonub déli ci réew réew mi liste électorale yi ngir xool kuy dem ak ku dul dem ndax liste yi baax na mënatuñ koo am ci réew mi ñu war a njëkk wote ci réew mi ñu kale leen parrainage boo xam ne baaxul sàll nga ni du deñ fichier électoral bi nga ni doo ko jébbal parti politique yi ñu ne déetawaay na nga jël ay candidat yoo xam ni mën nañ laa suuxal di ronkos ci gën di dëbb El Hassan Sall naan kon président Macky Sall sa ay neexul tribune yéen kaay ne waaye la neexul dey mooy lii am 30 bii ca diggante Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko judice ci 24 heures yéen kaay naan nan dàq mënatul nekk de bee moo doon ñetteel bi fi nekk ne kay face à face rek sa gëbëre te nag lay xaar Sonko dafa sax neexul ndax diffamation délit la boo xam ne nii ñi ci rëcc bariwul Sud Quotidien ne semaine bu nar a metti ndax yeewi askan wi ci boppam ña ngay woote ay manifestation Tribune yéen a kaay ne saay saay e raxati ca jël alalu askan wi l'observateur naan ay force occulte ñoo am ci réew mi ñu amoon bébét bu ñaaw ancien bataillon bu commando la woon moom FM mii dañu koo jàpp ak ay cocktail molotov lenn ci explosif yooyee ñu gis ko ci benn lotel boo ci baa ma bokk seen groupe mooy boroom ñeneen ñoo xam ni expert lan ci wàllu jëfandikoo ngànnaay obs ne ma ñoom tamit jàpp nañ leen ci mbir mi tribune yéen kaay ne ma docteur Babacar Niang tey jii lay jënoowaat ak enquêteurs yi source a ne ma boo moytul moom docteur ci boppam daañu ko defeeree Sud Quotidien ne ma gannaaw coowal Prodac li Idrissa sekk day niki tey dina wax ndaw réew mu yëngu Vox Populi naan laaj ba mooy day doon candidat ci présidentielle bi am dee dawam yeeg diaspora bi ña ngay ci moom idi mu daal di sampub ndëndëm réew mi Quotidien ne Idrissa Seck dafa ne damaa judd doon président kaddu loolu lay sarax jëm tey jii ci altine gi soo moytuwul nag conseil économique social ak environnemental ban ko sampoon Idrissa Seck dana ko wàcc may sa mayee koor Diouf ne Benno Bokk Yaakaar de bu Idi bàyyee du ca yëg dara Vox i naan man booba ñu ànd ak Karim may sa wàdd ña nga xam le ni seen waa daal léegi mu del si réew mi tribune yéen kaay ne réew moo xam ni daal dinay tàng daal di jaxasoo Samba Sall maire bu jabal i naan kenn jaxasewul réew mi ku dul Ousmane Sonko mooy élément déstabilisateur bu réew mi fi réew mi toll politique bi daal dina yëngu lool Samba Sall lay wax manifestation yi daal di bari lool manifestation yi opposition bi daal sa sakkan te manifester yi dara jurulu ko li ñu ne dañu ne siñ fang son Sonko diggante nguur geeg opposition bi mës ta neex waaye tey ji làmbaay dafa gën a ñaaw sàmba naan kon usubul taar réew mi laas naan maan waxtu woowu sàlla ngay dajaleeg njabootam libération yéen kaay na demul ca waxi naan nimsaat xool la fa am AG ba waroon am ci biir APR dafa daal di yàqu yaxee ndax Racine Talla moo ni Mamadou Yaaya ba du fa jël kaddu tànnin tey xeer yaag yàq tey daal di tàmbali Mamadou Yaaya ma loxo ci local yi ngir ñu liggéeyal Sall ndekete yoo naxee mbaay la woon naka la mën a woote assemblée général boo xam ne dañu ne responsable soxna yi ak coordonnateur ndaw yi duñu wax ndax ci élection locale dañoo faroon ak Mamadou Yaaya ba ñaar ci militant Yaaya moomee ñu door leen ban leen di toggali xewar Yaaya naan na Sall wax ak Racine Talla su bëggee gagné élection yi loolu mooy dëgg l'enquête quotidien naan man ba ngeen di xeexoo suukara ngi manqué ci koor gi ba maar yi l'exclusive yéen man jeune patriote yi boobu lañ bëgg ci réew mi mouvement yees la bu juddu ca diwaanu Pikine Mouhamadou Lamine Lo ak ñamu àndal naan ndaw yi ne ñun yéenay seen yaakaaru njaboot yi yéenay yaakaaru Sénégal bu ëllëg bi bu leen nangu kenn di leen dugal ci coow yoo xam ne bu gee seen njaboot duñ leen mën a jariñoo Mohamed naan leen bu leen nangu doon bayub saraxu kenn xeex ngir changement baax na waaye nag ak anam yi nga xam ne noonu la ñuy xeexee ngir soppi ko am ci réew mi soppi ki googee ak xeex bi éducation ak tàggatu ci wàllu environnement moom la ñu ne soob ndaw yi daal di leen di dugal ci mercredi vert 24 man docteur Gora Niang bu ministère bu environnement daal dinay ndaw yi muy élèves étudiants ak jàngalekat waaye tam personnel bu encadrement ci xool nag nees def ba sàmm àllam bi sàmm suñuy ressources naturel waaye tam def promotion bu développement durable yéen kaay bi naan maan géej gi day mëntuñ fay jëfandikoo lenn ndax yàqu ya xeet docteur ñaane dafa war a dakk ci réew mi ñu tàggat ndaw ñi waaye tam mag ñi nga xam ne yeyoo nañ ko ñu mën a xool bu baax a baax nees def ba yàqu ya xeet nga xam ne àllam beeg géej gi am na ko mu daal di dakk ci réew mii réew pile xool bu Doro Gueye amicale bu moniteur ak employé auto école bu Sénégal daal dinañu yeete nag ci l'accident yu bari yoo xam ne mi ngi am ci réew mi waxtaan ak usagers yi jëflante ak ñoom xibaar leen ci nees moytoo accident yi yéenekaay bi naan maan gannaaw auto école yi dooro gay ak plateforme bi war a soobu ci handicapé yi war a soobu ci couturière yi war soobu ci salon de coiffure yi war a soobu ci association bu tailleur yi Sénégal ngir nag réew mi mën a jëm kanam libération yéenekaay naan maan jëm kanamu réew mi day du yomb xoolal ma la am ci diwaanu Kolda magie noire la ay néew yees peq ca kaw Kaolack xale bu jigéen bi am fukki at ak juróom benn moo daal di jam faru cousinam ba mu ñàkk bakkanam ba ko enquêteurs yi laajee moom xale bu jigéen bi dafa ne cousine bi mook far wi danoo amoon ay jafe-jafe di xuloo mu tombe ca ndax nag coro sa dafa ni far wa dafa amoon geneenu coro ca la cousine bi nangoo ab paaka boo xam ne ma nga woon ci loxol benn taalibe daal di koy jam menuisier bi nga xam ne ñaar fukki at ak ñaar dong la amoon ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm. saa Sénéinfo